salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna ñu ngi leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéen ngi suivre Leral TV Leral point net en direct fii c'est Siteu nga xam ne mu ngi waajal bisam digganteem ak Lac de Guiers ci kanam tuuti lay doon maa ngi ànd ak ci caméra bi nga xam ne yéen suivre Leral TV ànd man ñu xool gars ni ñu préparé pour dem stade yalmin bi mooy waaj a génn Siteu la digganteem ak Lac de Guiers la ci kanam léegi stade ak jàmbaar production Lac de Guiers ñu doon xaar tey la 19 ci kanam tuuti dina leer ci stade bi nakataa topp moom ma xool gars yi ni ñu préparé pour dem stade. yàlla yàlla bëgg. taxaw fii di xaar Siteu dem nan ngeen di waajee combat bi. dóor mu daanu rek mu la soxla Siteu. dóor mu daan dina yomb. ka yomb muy yomb. suñu suñu jog suñu suñu jeeg boobu dañuy dóor mu daanu. suñu jeeg la. dana gerte di mbër ngeen eh, la nga naan la dañuy dóor rek mu daanu ñun. waaw ndam rek. <laughs> yan mi ngeen di bëree te ndaanaan la bëri kat la. ndaanaan fan pour yan men bi tal bi maam Cheikh bi day dem rek daanu. kese. waaye yomb Siteu rek ndam rek lañ soxla instant soxla ñu dara dara lu dul ndam. ci kanam dina leer. noonu la demee topp ma si biir. ñoo ngi lay fay. yaa ngi si yaa ngi en direct Leral looy wax ci combat Siteu bi. xanaa kontaan bu dem jàpp la ne gerte. ah buñ paree géej waay man li ma conseillé Siteu bu mu topp na tey parce que ñaari combat yi fi jaar yëpp am na ci leçon muy combat Modou Lo muy combat euh, kii bi na tey ba ko fekk ci ay bu taxawee na taxaw dara bu nii la amee sax baax na mais bu mu ko fekk. mais la dëgër nee na fu si la teg tànkam dara ko fekk. barki Serigne Bamba du buuse. billaay bu buuse ma lekk ko. la dëgër bu buuse ma lekk ko. la dëgër ngay waxal de. dama koy yey. fay la. saa yi pare nañ yow xam nga ni saa yi pare moom saa yàlla rek moo des yàlla na yàlla tuuraal rek maa ngi ndam. mais ay minutes moo ci des. waaw ngeen dem stade digganteeg la daguerre. nan ngeen préparé. combat bi ñun saa yi pare nañ dégg nga lu si wax naa suñ siiree suñ siiree mbàkk alxuraan dañoo yónnee yàqamtu gi taxawaalu waruñu dañuy dem jërëjëf dañuy moom ci fula ñu ci waat ci fula. mais ngeen di bëre koo xam ne ndaanaan la bërikat la te combat am bu bëggul mu gaaw bu bëggul mu gaaw du gaaw day taxaw ba ba keroog mu pare. la daguerre lu mu def daanu tey lu mu def daanu te billaay dama koy daan. waaw man laxasaay leeral ngay waxee de. barki sëñ Fallou Mbacke la guerre tey lu mu def daanu te billaay walaay dama koy daan. mais tey neen a guerre ak mbër mi de. dama koy daan nee na si da tey fu mu si dina ko fekk daa yàqamte ne ko yàqamte ak gaawtu bu ñu juree doom rek dafay am place tey dina rëcc bu neexee yàlla. mujj lu ci ëpp finalement dañoo jox la de guerre favori bi. loolu laa da bu muy daan ponkal tolul nii. combat bi ban combat Siteu la lay fàttaliku si lu mbapat mu la wax naa Siteu daan ponkal barki Serigne Saliou Mbacké tollu nii billaay wallaay wa taalaay waay wax ci la dëgër daan ñibbi solo Siteu naaw duma daan daan bu ñu tag bu ñu am jeex eh, jeex bu xëy na doon Tarkinda Tarkinda si jéem a moom duuma daal ñu si. atiwaat dafa mel ni tey yaram bi da nga xaw a fas da def tekk lu mu demee noonu pimbi gars yi xamee loolu nii de. mais combat bu ne ak lu mu laaj. Ah? combat bu ne ak lu mu laaj. Ah, bi daa laaj loolu. waaw bi doo laaj tekk dal ni vigilance xoolaat bu baax. mais ci kanam nan ngeen duggee pimbi. nañ daan duggee rek ñun yoon ndox du bàyyi ñu ay ñaari bañ naa leen yow ñun ragaluñu dara luñ bëgg jël luñ suñu bët bi may nii luñ. luñ bëgg a jëli luñ koy jëli na suñu bët bi tegu ne rek suñu fi romb na lool. mais la nee na fu Siteu teg tànkam tey da ko fay fekk. loolu ay mbokkam lay wax ni leen kontaan lool rek day wax rek day wax lu ko neex rek di bëgg ay bégloo ay mbokkam mais bon bu tëddoon ba guddi buñ ko yeewoon wax ko sax ko gëm. arbitre soufflé la dëgër taxaw Siteu déglu ko dégluwaat ko nan la Siteu war waaw duma rek Siteu moom. su pongal yi gën a aay sax dóor dóor yu métti da lay duma daan la par force. te ñoom xam nañ loolu ñoom. bi si kanam dina neex stade. waaw stade neex na ba noppi yow fii yow yaa ngi mel ne yaa ngi stade nii. waaw tamit. wala démb da nga waroon ñëw jaamu gën démb. soo ñëwoon démb confiance waa jaamu gën dafa bari trop. waroon ñëw démb jaamu gën. yëngu na. soo ñëwoon démb jaamu gën démb si guddi ay minuit. parce que alxuraanu karim da ngeen àdduna kon ñu mooy kër maamam yàgg na fee ngemboo digganteem ak naxa naxa fi la ngemboo digganteem ak zotra fi la ngemboo fi la ngemboo cey sita yalmin bi waaye digganteem ak Boy yendoo digganteem ak Sa Thiès moom sita digganteem ak guy gi combat bu mës a bëri fii la ngemb ba ci Papa Sow bu mujj tey mu ngi nii di waajal la degeer ngemb na bay waajal pour génn dem stade tey si kanam tuuti ak stade. laay jëlal ma euh, biir oto bi L200 bi euh, jëlal ma oto bi nga xam ne moo def gàllaaj yi nga xam si ni moom mooy gàllaaju Siteu waaye tamit jëlal ma ñi nekk ci oto bi rek ay rakku Siteu lañ ay mbokkam lañu ay jegenaayam ay xaritam ay am di jàmmam waaye laay jëlal ma photo Fodé bi fee ñu ko def ne photo Fodé bi fee ñu ko def ne jëla ma loolu waaw ah, lii lii lii ñu def ko nii am na am na lii am na lum leen di fàttali. lu garaaw billaahi fi la daan nekk di raade di jaayante Fodé yàlla ko yàlla torop torop torop. fu ñu tourné la ñuy àndal dogalam rek. loola dañuy jël lépp sant ko yàlla rek. waaw waaw waaw ñoo ko fa am. ñu ngi siyaar de waaw ñun de ndam rek rakal la suñu lëpp la barki maam Seera Fall Cheikh Oumar ay wax ak moom ndam rek ci kaw ci kanam ci lu baax. ndeysaan Guèye wax noonu Guèye mooy wax noonu ay Abu Sawde moo ngay xotti saaku yi xaw ma lu muy seet. ndeysaan Guèye am na lu mu wax ba dugg nee na gis nañu biteel bi biteel bi mu doon seet gis na ko. ah moo doon seet biteel bi mais laay gis nga biteel bi seet na ko ba dugal ko ci biir Abdou Seck a ngi noonu. Abdou Seck a ngi noonu kooku ngeen gis noonu alaaji moo kagalu noonu. mooy caat bi moo kagulu noonu gis nga moo def kagul bi xëccal ma ko laay xëccal ma ko waaye moo kagulu noonu booy boobu day daw rek amul arrêt maama mi a ngi nekk noonu rakam la DG wëcc moo nekk noonu moo def ceenu calal yi moom lu cher rek lay takk DG wëcc cey DG mais noo leen gisee DG bi. DG DG ko capot la. mais est-ce que DG la. non bu mag sax du bu ndaw. Ah, est-ce que DG la jënd. jënd na bolok yu bari. mais mais mais mais est-ce que bi ñu wax moo ngi ci DG. non mooy bu mag bi barki Serigne Bamba. kii su nekkul DG bi nit du nekk DG bi moom seul. bilaay wala. ndeysaan. dugg ak génn bi ci biir kër gi moment bii ñu toll ne moment la boo xam dafa difficile moment bi ñu toll nii wax amatul dara amatul jëf rek moo am moment bi ñu toll nii ci la ñuy xamee jàmbaar yi si jamono jii ñu toll nii ci lay xamee jàmbaar yi. xoolal muur nañu muur nañu oto bi muur nañu bagage yi nekk ci oto bi. Eh! muur nañ bagage yi nekk ci oto bi. Mam jële ma noonu bunt bi waaw mais caatu fora maa man kay bëgguma wax nar a faalu jaax ah, bëggoo naa kenn warul wax tey. gars yi war a jëf. da ah. war a jëf. tey du bis wax. ndax du bis. waa nee na tey du bisu wax dañoo war a jëf Baye Fall a ngi noonu ci bunt bi Baye Fall a ngi noonu ci bunt bi Baye Fall John Waar moo ngi noonu ci bunt bi. jëlal ma ko bu baax. laay am na lu mu toj. géyang koy sotti. géyang koy sotti géy am na lu mu koy sotti. géy am na lu muy sotti wax mais ki ma gis Siteu la. laay jëlal ma loolu. laay jëlal ma loolu laay sotti nañu borom dëkk bi laay Serigne Fall Fall xool ko laay ma loolu laay jëlal ma Serigne Fall Fall yaayu Siteu mu ngi ñaanal doomam mu ngi ñaanal doomam doom danday ja ku mën sa ndey tax sotti nañ ko soow mi sotti nañ ko soow ma sotti nañ ko soow ma sotti nañ ko soow ma soowu biri del la mu ngi sëlmu si taa ngi sëlmu yaayam a ngi noonu Siteu a ngi sëlmu. yàlla la yàlla may. kii laay la. laa ilaaha illallah. hee ki ma gis kan la. laay Siteu mbalaan la def. Siteu ci biir mbalaan mi ci buntu kër gi. Siteu a ci biir mbalaan mi ci buntu kër gi. laay Siteu ngi noonu ñuy sotti jëlal na boppam sottil na boppam mbaadu aalu mbaadu aalu mbaadu aalu Siteu ngi noonu laay naxataa Serigne Fallou Fall ngi noonu sotti na ko sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall sotti na ko eey Serigne Fallou Fall eey Serigne Fallou Fall laay Siteu ngi noonu. mbaar yaa ngi génn moment bi ñu toll xale yi ñoo ngi jëm mais pimpi moment bi gaa yaa ngi génn waaw gaa yaa génn nice ak sëñ Touba nañ daan génne rek la ñuy génne boole bu ko raw sax waaw mais doom day jël bu rëy ngay gis tey ah. bu rëy a rëy ndam barki Serigne Saliou Mbacké ndam rek incha allah rabbi borom dëkk bi dañuy daan soobee yàlla dañuy daan incha allah Aliou Ndiaye Mame Fall waaw yàlla nañu yàlla suturaal si daraja yonent bi daan la de guerre service moment bi ñu toll ni laay mais jëlal jàmbaar yi yaay si ñoo yaay si jaaxaar incha allah rabbi la de guerre da taxaw man damay anif le 19 te si daa war a daj daj bi Lac de Guiers na gaaw ñi daal ko mu dem ñibbi moo gën. Ah, li nga xam si ni mooy phénomène boo xam si ni Siteu buy génn gis nga mbooloo mi Siteu buy génn gis nga jàmm gën lu muy mel laay ñu dem ci biir. Weuz. Weuz lu xew. waaw xam nga champion bu mag bi mooy bëre. yaa ma gën a xam loolu champion bu mag bi mooy bëre tey dara du leneen man la diggante ba dañuy sàmm boobu ñu nga la mais nu mu demee. billaay Sénégal loolu dafa leer. waaw loolu dafa leer. sama doom day moo aaye dem jëli ko rek amul leneen. senegal nañ la ñaanal sunu borom defal la jàmm. defal ko ñëpp. defal ko Siteu Siteu la ko yàlla defal ñëpp am jàmm Siteu am ndam ndam bu seddoo guy sama xol féex loolu kese bi nag instant yi nii waaw. mais ndeysaan lay <laughs> combat bi ndeysaan combat bàyyi noonu Siteu ngi doon di waaj a génn pour demee stade ndeysaan jëlal loolu naka taa xoolal ma xale yi ñi ñoo bëgg seen mbër nii la ñuy nar toppee di toppee stade Siteu rek Siteu rek Siteu yi dëmm yi la da guerre tey lay xam ne lépp dëgg la luy xew dëmm yi ñoo dëmm yi la da bu yaakaaree ne yëpp la da waajee nañ ko lu ne moom lu muy indi rek pare nañ bu dee doole la yaakaar ma ngi Mbora xoolal fii taatay lu garaaw na biir jàmm naka taa xale yi maire yeeg paa yëpp a génn di ñaanal seen mbër Siteu waaye digganteem ak la de ci kanam arène nationale. xoolal xale yi xool leen nee nañ Siteu xaar ba moom ba stade. sànni mu tëdd. day garaaw mais moment bi bu ñu tolee ci làmb dañuy xam ne borom làmb ji ñëw na waaye boroom dëkk bi ñëw na. Siteu la diggante moom ak la de Guiers di combat boo xamee Mansour yow la ñuy gërëm bu baax a baax Mansour Ba ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax di la kontante di am mbégte ci yow di la ñaanal sunu borom defal la jàmm ndax ko ku ne xam na ne promoteur la nga boo xam ci ni yaa ngi liggéey ci làmb xool dégg lii. yoo xam ne dafay ñëw jël si dem la dëgër. ma xari Issa Dieye Fatim Penda ak maa ñaay. lam sukaabe ngone Dieye jëri ngone mbay. yaa moom moom réew mi. tey combat ba woon démb. mais doole Tmax bi lan la. mais mi du ci combat bi xoolal xale yi naka taa xoolal ma lii oho ñëwal ñëwal waaye Yamine bàyyi noonu di ñëw ndeysaan xoolal xale yi ñoo bëgg seen mbër xool leen daw di way xoolal ma xale yi Nakata jëlal lii Nakata fii xoolal ma xale yi ndeysaan xale yi nee na ñoom Sidara lay naka taa mbër maa ngi noonu di dem xale yaa ngi ci topp di way ndeysaan oh xoolal ma xale yi ngi taw di ñëw yéen a ngi koy am fii yéen a ngi koy am en direct Leral TV naka taa jëlal mbër mi mu ngi ci kaw xale yi topp ndeysaan xoolal xale yi ñu ngi topp di daw waaye lu ma jaaxal Abdou Seck day wis rek Abdou Seck ma ngay wis rek gaan xoolal ma ko daw bu lu ma jaaxal Abdou Seck day wis rek xool ma kii. xarit nga ndeysaanam. oho. dégg lañ ñu xamee bari yan billaay wallaay. dara xamal leen de yan bi pare. Siteu mooy borom dëkk daw ni yow. Seydina Mohamed Siteu jaral na ma daw ba fee. Siteu jaral na lu ne dañuy am ndam ah, maam Serap Fall nga jàppee Mohamed dëgg la ñuy topp barke Alxuraan faka maaka joka bundu métier dafa gën dégg ma ne faka maaka joka bundu kiliñ ka métier si te lamb ji métier am la fooyee ko doo ko lépp lamb ji si te la barke Alaaji barke Alxuraanu Karim turu la dëgg ragal guerre turu ragal guerre si te ruq ruq ne wala judd si te ruq ne wala judd yoo Alou Ferraille fii rek day dem mooy si te ragal liggéey ngir say noon am doole ngir say dëkk waay ndeysaan xale yaa ngi noonu buuba buuba seeral ma côté boobu buuba dugal li buuba tegal fi benn tànk xoolal buuba buuba ñii rek naka daa xoolal xale yi way. wala na foo baax na waaw waaw. boo toogee kii gis moo tax. booy laa bañ ñu taxaw kenn taxaw. booy yi dinañ dégg. ragal dara. ndeysaan lii lii jàmm lii lan la caaroy géej. waaw moo jaaxal nit ñi. Pikine postu caaroy foo romb. waaw ngi xaar Siteu. mais lii lii moom sax mënul am fu jaar moom. billaay walaay. nii gis mbër la kii gis mbër la. depuis 3 fi may waxee yow nii ngi seulement ñu ngi sib si mais xoolal sib si nu mel ci mbooloo. ndeysaan sib si non non gaan wàccal gaan wàccal jàpp si jàpp si wàccal yaa ngi sib na xoolal ma combat bi xoolal ma xoolal lii. rek la ñuy topp. ndeysaan. Siteu rek la ñuy topp. naka taa xoolal lii. lii lan la. waa lii lan la lii lii. mooy am lii jàmbar kii du mbër kii sërif la wallahi kii boo waa toom yàlla la jàmbar la kii góor yàlla la góor yàlla du topp sa lamb te mbër baa ñëw mbër ndeysaan Siteu

ndax mbooloo ma xale yi tànk ñaani si la kase lañ toog góor gi jël la lii daf maa kii indi géem la créé beneen poste indi géem créé beneen poste Siteu kese. naka taa jëlal lii naka taa xoola xale yi. <laughs> waay naka taa waay. naka taa jëlal ma ngay tooj. waa lii lan la jëlal jëlal xale baa ngi fo oxo oxo waa lii lan la lii lan la barke Sëñ Tuubaa Mbàkke la dagee rey taali reer rey na suul tànk yi ne ngeen yaram bi barke alxuraanu karim ñu tëddee ndeysaan xale yaa ngi noonu ñoom nee nañ si te rek ngi noonu di ñëw naka taa yal min bi ngi dugg oho cosaan séeréer la dugg see waaye Siteu lan ndeysaanam Siteu Siteu noonu Siteu ndeysaan Yelmin baa ngi noonu taxaw Yelmin baa ngi nii xoolal ma Siteu stade bi yëpp jug nañ Siteu a nii taxaw xoolal ma Siteu def xoolal xale bi ma dem xoolal ma mbooloo bi naka taa xoolal stade bi oh. dugg na ci biir Thank you. bokk ci seen biir doon doomu Pikine doon ndaw euh, xam conditions yi nga xamante ne si moom la mbëri di préparer seeni comba mu nekk ay conditions yu métti parce que bër bu ñu jox avance balaa comba bi di yegg si avance ba dana jeex ba sax yenn saa yi nga am ay bor si nag nekk doomu Pikine di daw di di Pikine di daw ci moom. kon lang lamb ji luñ mën a nekk autorité nga xam ne xëy na suñu suñu të tëddaay faaw mu nekk ñaxaanaay parce que faaw ñu bàyyi xel ñëpp suñu deret nag day sot ñu mën a beral loxo Siteu loolu la ñu def nag te yaakaar naa ne waa kër Lac de Guiers dañuy si mere ndaxte Siteu doomu Pikine la kon buy ñëw drapeau Pikine aussi lay indaale waaye aussi dafa nekk xale boo xam ne damaa gëm ne dañ ko war a encourager mais parce que exemple la ci yeneen ndaw yi Siteu ëpp lu yeneen mbër yi Siteu jomam ak gëm boppam ak nangoo liggéey moo ko yóbbu ci niveau ba mu yegg. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko sutura bu baax a baax a baax mais aussi yàlla may ko yeneen i ndam ndam ndam ndam ci ci làmb ji. kii maa ko bëgg sama bopp muy doomu parcelle da am lu muy liggéey ci parcelle da am lu muy dundal parcelle mais Go Faye maa ngi lay nuyu sa sañ sa lan la. <laughs> waaw maa ngi lay fay di nuyu téléspectateur Leral TV yëpp euh, di nuyu waa Sénégal waa Dakar mais une salutation particulière waa Parcelles Assainies moo waxee Parcelles Assainies nag wax naa ñëpp mais tey comme euh, sunu frère Mansour Ba moo aye tey moom mooy nekk su les projecteurs ginaaw moom sunu frère Modou Lo le roi de arènes gis nga bu mu ñëwee coow li la pour mais aussi euh, le parrain de l'événement muy euh, le ministre Amadou Ba grand frère kon Parcelles Assainies moo woote ñun en tant que Parcellois ñu ñëw teew fi mais di remercier suma benn xarit boo xamante ne bi ñu xamante man ak moom ëpp na diis an mooy le directeur de la LONASE Doura Baldé dama toog rek mu woo ma ne ma góo xam naa ne parcelle nga dëkk euh, bari nga booy yu bëgg a dem yónnee ma billet yu bari donc mënu ma ñëw fii ba dem te du ma ko remercier waaw jërëjëf. ku ne xam na ne sa diggante ak Modou Lo tey Siteu la de waaye tamit drapeau bi kiñ ko tuddee. muy sa kilifa di sa lépp tey loon nga ñuy wax tey ci arène waaw waaw di di kontaan rek ki ñu ko tuddee tolloon nag bis bi bi man Mansour mi ko def aussi euh, def na yëfu Parcellois xam nga man ku ma xam rek ne xam ne identité parcelloise moom lay incarné moom laay revendiqué doomu Parcelles Assainies yi dañu war a mayante doole ba moytu li ñu dal Parcelles Assainies dalante ñu parce que topp nañ ay consigne de vote ba xamuñu lan mooy élection locale lan mooy élection législative lan mooy élection présidentielle donc ñun nag euh, Parcelles Assainies dañ mooy suñu nattu dañ ko bëgg ba li xale yi doon naan picc Parcelles Assainies sax boo ko laalee laal nga ñu moom moo tax ñi wax rek ne prise de conscience boobu mi ngi am te yaakaar naa ne ñun waa Parcelles Assainies nañ doolalante sunu biir ba Parcelles Assainies ni euh, mu nekkee la première commune la plus importante en termes d'électorat ñu gis ko si diri direction yi gis ko si ministère yi gis ko si gis daal suñu bopp si réew mi. tey taliba Bamba doo ragal taliba Bamba doo ragal Baye Fall taliba Bamba doo ragal Siteu Baye Fall góor la baaxu baaxu góor la laara baaxu góor la laara baaxu góor la laara baaxu góor la laara baaxu góor la Siteu nag boo ko amee digga laale bul dof waxal waay Siteu waxal waay mbaraki gir gir gir gir gir mbaraki jar mbaraki gir gir gir gir gir mbaraki jar ca ca ca ca ca yëngal gal ana Siteu mooy Siteu moo koy yëngal waay ma waay yëngal wax leen mooy Siteu moo koy yëngal bokk jakit gis Modou Gueye gis ay sitak gis Modou Gueye nanga debo engul naame ay at ay secondo ci des wara wa dem na këng waxi mag dem na taani bàgg war mbaam ndeysaan lu waay doon jaay léegi mu lamb oho Siteu ak Lac de Guiers ndeysaanam baa ngi wax ak ñoom li lamb nangu ak lim bañ wax na ak ndax day gaaw ndax day yéex oho arbitre bi soufflé na combat bi dimanche 19 novembre fii ci arène nationale oho jàmbaar production moo fi woo diggante Cité la ak Lac de ma nga xale la oho Cité moo féete ndeyjoor Lac de Guiers moo leen féete càmmoñ na ngay lëkkatoo waaye Mansour borom ay BT maa ngi lay nuyu Siteu lancé na mais demul waaye cey le 13 janvier Baba Jaxal Ibou Afia fii lay xewee yaram aar fa jaar Bakary maa ngi lay nuyu ak Idi ndeysaan la de guerre ngi dox ci kawam Siteu la de guerre Siteu ak la de guerre Siteu la de guerre la de guerre nee na ko foo taxaw ma fekk la fa. ndeysaan Siteu Lac de Guiers Siteu méb na léegi Lac de Guiers taxaw Siteu door na gauche mais dalul Lac de Guiers cokkaas na Siteu dem na Siteu Lac de Guiers oho Lac taxaw na Siteu Lac de ndeysaan Lac de Guiers cokaas na léegi door na ko tërëf na Siteu Lac de Guiers Siteu dugal na ko ku ñu daje ñoom ñaar Lac de Guiers tërëf Siteu tërëf ñu dajewaat léewtoo Lac la Guiers taxaw na suul tànk yi dañuy bëre dañuy xeex Siteu moo nekk côté saako yi Siteu wàcc na ba tolloog moom Siteu dem na jàppante nañ lan mooy xew si Lac de Guiers la de Guiers am na ngeemu Siteu Lac de Guiers Siteu jàpp na ngeemu ooy naka taa lan mooy xew Siteu Lac de Guiers Siteu Lac de Guiers ba tey ñaari mbëri jàppante nañ Lac de Guiers sigil na ko la si di na ko luy xew si da ma ngay waaye fam jàpp baaxul la degeer eh, eh. a ngay dajale eexee si da la degeer la degeer si da ngay rokas la degeer a ngay rokas si da nengeñ na ko lan mooy si da da ko te si da am na Siteu am na géemu tey bii làmb ne woon naa leen du yomb Siteu ngay dóor mais Siteu jàppoo di dóor ndax loolu wóor na Siteu la de guerre la de guerre ngay ruku luy xew Siteu ngay ruku Siteu la de guerre la de guerre ndax manuel du fi am oh ña ngay bëree lii lañ doon xaar stade bi jug nañ Lac de Guiers eh, eh Siteu jàpp na ko Siteu Lac de Guiers Siteu Lac de Guiers Lac de Guiers génn saako yi arbitre Lac de Guiers génn saako yi Lac de Guiers génn saako yi xoolal ma mbooloo mi mais Siteu mi ndaanaan la de naka taa Siteu mi ndaanaan la oxo xale yi nañ xeex nañ oxo ñu yaakaaroon day yomb combat bi du yomb de Siteu Lac de Guiers oxo waay Siteu waay ma ngay takki sengooree di joxe ndax sëriñ ba du am lay arbitre bàyyi ko arbitre ñi duñ pasal parce seen lambu naka taa xale yi bëre nañ arbitre la wana arbitre suuf la waat na Lac de Guiers ak Siteu ndeysaan nañ léegi xeex nañ jàppante Lac de Guiers dikki la génn saaku yi ñu ñëwaat arbitre woowaat leen oxo Siteu Lac de Guiers ndeysaan ñaari xale yi bëre nañ xeex nañ tey jàmbaar production lii lañ doon xaar la déggee da ngay cokkaas ma ngay attaqué la déggee Siteu dem na la déggee arrière na Siteu la déggee Siteu la déggee Siteu la déggee ngay cokkaas waaye tey le 13 janvier Baba Diakhal Ibou Afia du ma leen fàtte di ko wax fii lay xewee ci arène nationale bi yaram ar moo fa jaar ndeysaanam xale yaa ngi bëree si taa ci saako yi si taa ci saako yi lang la bëgg Siteu Lac de Guiers Siteu na waaye dalul Lac a ngi dem Lac a dem Lac cokkaas na ñu ngi saaku yi de ñaari mbëri arbitre woo na leen ci biir géew bi bi nee na leen ci biir géew bi Siteu da kaa li Alésir la ko ba bëreeg moom arbitre soufflé waat na Siteu la de guerre ba tey joxaguñ kenn avertissement ñaari mbër ndeysaanam Siteu la degeer ndax Siteu day dem Siteu Siteu door na duraat waaye dalul la degeer Siteu Siteu li ngay sànni dalul la degeer a dox ci kawam Siteu Lac de ba tey dara xewagul Siteu Lac de Guiers Siteu dugg na ci garde bi génnaat waaye Siteu ndax na ngay xeexee Siteu Siteu tërëf na léegi taxawaat arbi toogal Siteu la de guerre nee na leen bare leen waaye Siteu Lac ba tey ñaari mbër yi stade bi na teg tëggkat yi ngay dégg waykat yi Lac de Guiers a ngi enchaîné combat bi ba tey lewtoo nañu Lac ci kawam Siteu dugg na ci garde bi waaye song bi baaxul oho Siteu la de guerre Siteu la de guerre ba tey lewtoo arbitre mu ngi naa leen bëre leen na gaaw waaye combat bi du mën a gaawee noonu du yomb hey Siteu dugg na ci garde bi léegi génnaat waaye dalul Siteu la de guerre combat bi yàgg na metti na combat bi warul gaaw du gaaw oh la de guerre tuuse na ko léegi dal. Siteu Lac de Guiers Siteu day bëgg a ñëw mais Lac de Guiers da koy tëj mitaan nañ ñaari na leen arbitre baa ngi wax ak ñoom woowaat ci digg géew nee na ko Siteu taxawel nii arbitre bi soufflé waat na Siteu ak Lac de nañ sàng ba mi-temps waaye man soor maa ngi lay nuyu borom ay BD Siteu Lac la Guiers Siteu Lac de ndax ndax ndax du jeexee fii Siteu ak Lac de Guiers Siteu Lac de Guiers ndeysaan diggante Siteu ak Lac de Guiers diggante Géejawaay la ak jàmm gën Lamsar daanu jag saaw sam-sam tëli maam jaara si kaab mbaaw Siteu dugg na ci garde bi door na ko kuubu dal Siteu dooraat na ko ndax doo door mu daanu la degeer Siteu Siteu soogo na ko léegi door ko kuu waaye ar toogal oho Siteu la degeer Siteu dugg na ci garde bi door ko kuubu dal la de guerre tërëf Siteu daw soogu ñu jàppante ma ngay ruxas mais Siteu ko bëgg a bëtt xeexee eh, eh. la de guerre Siteu Siteu ngay ruxas Ardo Siteu dem na Ardo yelmin bi dem na Ardo Lac de yóbbu na Ardo Siteu dem Ardo ndeysaan arbitre suuf la wana diggante Siteu ak rojo. Siteu Lac de Guiers ba tey dara xewagul. combat bi yàgg na diire na. ñaari mbër yi. bëre nañ huit minutes ndeysaan. si deuxième carton bi Siteu ak Lac de Guiers jàppante nañ baaraam Lac de Guiers a ngi dox ci kawam Lac de Guiers a ngi dox ci kawam Lac de Guiers si nee na ko ñëwal ci samay tànk exe cey bi combat diggante Siteu ak la de arbit arbitre mi ngi naan leen bëre leen waaye arbitre ñi ngay bare bul xeeb liñ def bëgg ñuy saasaaxee seen combat Lac de Guiers Lac de Guiers oho Lac de Guiers waaye du dem Lac de Guiers day waaye du dem daje nañ Siteu daw na jël ko lan may xaw Siteu Lac de Guiers jàppante nañ Siteu jàpp na Lac de Guiers Lac de Guiers Siteu nañ Siteu nenge na ko Siteu Lac de Guiers na ko Siteu ngay bëtt lan mooy xew Lac de Guiers Siteu eh Siteu na ko luy xew Siteu Lac de Guiers Siteu na ko ndax du def karab bi Lac de Guiers Siteu eh Lac a koy kal Siteu bañ na Lac de Guiers a koy dóor suuf Siteu Lac hey Siteu Lac de Guiers ña ngay bëre Siteu Lac de Guiers Siteu Lac de Guiers ndeysaan Siteu def na geste bu rafet longo na ak moom waaye supporters yi nee na ñoom Siteu lañ bëgg ndax la dëgër dafa dina mën a dem benn avertissement moo am ci lamb ji lamb ji jeex ñu jox la dëgër victoire bi